Sehingga jalan Penyemekana Penyemekana Penyemekana abonné wu ci seen youtube bu ñambe tv na ñu la fofu nga mëna abonné wu ndax ngay mëna am vidéo yi ñu duggal chaque jour alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim yawmiddin ya, ya, siratal mustaqim siratal ladzina xayril maxduubi alayhim wala daaliin mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu te di leen sant te jiital nuyoo bi ki jiin njaag te mooy njaag di sëñ ma sàmba jóob seex ma sàmba jóob ñu ngi koy nuyu ci besam bii nga xam ne mooy bésu cantam bi muy sante yàlla ah ñun am nañ ci lu leer nañ tam wax dëgg yàlla parce que buñu togué ba mëna sante yalla wala ñu mëna wax ci lu fété ci yàlla ma samba mi la mo ñu ci sam nak ba pare feral ñu ci def ñu tam were ci biir pays bi kon ma samba ñu ngi lay ñaanal gudd fan bu andak ak warsak bu yaatu andak barke ñun ñëpp ñu bokk ko nak waaw képp ku meñ ci yow rek ma samba ñu ngi lay wax ne yow mom ñaanal nga ñep ñaanal nga képp ku bokk ci yow waaw ku bokk ci ñun mooy ki bokk ci yow parce que ñëpp yaa ñu bokk yilif waaw sa cant bii nag du sa cant waaye suñu cant la ñun ñoo ciy sant ñun ñoo ciy sant lan lañu sant lan ñu defal lan ñu defal mooy lan dañ ñu defar ba pare defal ñu defar ba pare defal ñu kon loolu lañ la santee nag waaw waaye du doon sant àdduna lii rek ay xéewalu àdduna ñun xéewalu àdduna lañ la amel yow nag yow yaa ñu amel xéewalu alaaxira waaw xéewal alaaxira nag mooy ki retraite dootul wax waxu liggéey mukk mooy dem na mooy lii nag waaw lañ ñu defal fañ nekk fañ war a jëm ak fu ñu nekk mooy suñu lépp kon nag ku la jox ndékki jox la agn ne de nga rer eh, rafetal njort sa xamne de nga rer waaw kon jox nga ñu agn ndek ak agn waaw kon fañ dem mom waxale wuñ ko ndax fañ dem buñ fa xamul dem bi du neex te xamna liñu fekki waaw ya ñu ko xamal nak ñu lay ñaanal nak gudd fan ak wër ak say njabot ñu ñëpp ñu bokk ko ci teg ya asu li wax ne yaga jow yag na sa yaa astu boobu dara nekkagul dara wala boobu mu nekk dara boobu métti na yaa astu mii di soxna sëñ bi moom lañ doon fekk fii muy ko jàmbaar ko noonu mënoon a uuf nag parce que kii faju wérul nga uuf ko day jafe maanaam boobu ñun xamuñ lu du ànd ak xamadi ki ñu war a xamal nag wax dëgg yàlla bu ñu ñëw sa kër taxawaay bu ne la ñu taxawee mu muñ lépp wax dëgg yàlla ba ñëpp wax dëgg yàlla tey résultat yi moom teg na ci bëtam di nuyuwaat tam soxnaam si di soxna ngaara dëkk mbudaay waaw mbudaay boobu mu nekk soxna see ngaara mii moo fa moo ko fa nekkal ñu ngi koy ñaanal bu baax di tam di nuyu paap di taawam <coughs> ak euh, ibrahima ba ci souleyman ba ca euh, soxna yi ñoom ndey ñoom euh, muusu ñoom ñëpp ak faama ñoom ñëpp wax dëgg yàlla fii lañ leen fekk waaw lépp jabootam la doomam la kon ñu ngi leen di ñaanal di sakku ci yéen ñaan Cheikh Moussa dafa wax ne maa mën a ñaanal sama taalibe mais sama taalibe moom moo a ñaanal waaw waaw du siru abi waaw doom mbootu baayam la kon nag yow dangay nekk ñaari baay baayu jëmm baayu ruu waaw paa yu ruu nga sa doom ruu yi taxaw nañ am na ñu ñëwul nag ñu ñëwul nag dañ ko limité rek waaye fum ne nii bu nekk woon loolu moom beneen affaire la waaye nag ñi ñëw nag dañu ñëwaale ñu des waaw kon yow bàyyi ruu nga ci ñun ñi fi des ci saay sa doom saay nag bàyyi jëmm nga ci ñoom ba pare nekkaat bàyyi ruu ci ñoom kon nag ñooñu dañu war a góorgóorlu di ci sargaale tam soxna Awa nga xam ne wax dëgg yàlla fu ñu gëstu gis ko waaw waaw waaw bu doon jàngale ku neex a jàngale la du xaddi du tay te ku jàmbaar la yaawa li waral bés bi nag waa Ndiamé TV eh, liñ ne loo rus rus sa goro fanaan sa soxna li mën a am ni mën a teew fii te amoon ñeneen itte te bàyyi lépp teew fii am na lu ko sabab mbir nag balaa nga koy atte da nga xam la sabab mbir ma waaw xeex kenn mënu ko atte te xamoo la ko sos li sos fii nag ni doon wax dafa dof ak nii la mel ak nee la melu ak li ci mën a am mooy xam yàlla gis yàlla àgg ci yàlla àggale ci yàlla mooy coow li waaw te war nañ ci mën a am tegtal tuuti donte li ñuy tegtal nag nekkul lu tuuti waaye ñun ñoo bugg a wax lu tuuti mais li ñuy wax moom du lu tuuti waaw kon loolu lañ fi wax métti woon na lool nag pour xuus jàll waaye loo bañal bañal bañal loo bañal lëg dëgg dëgg amana war a nangu noppam yu guddi ak mun a bi loo bañ lëg lëg xam nga lëg nga war koo nangul yu guddi yi am na ko de waaye ak a mun a dew nag ku mooy sëñ bi doo ko bañal bañal xam ne boo ne saaf saafante ak moom ah, mu walla jangaru kon jàngar bi ñaanuñ ci wér ñaanuñ ci wer de sëñ bi waaw ku la ëpp jàngaru moo la mën a wal jàngaru koo xam ne ëpp la jàngaru nu mu lay walee jàngaru wolof ne ku la sut garab gu la sut moo la jox kër wala garab loo xam ne sutu la doo mën jox kër lan ñu sutee nag nga ñu yore moo tax nag ay dañu mot a di dañuy tooñ de mën nañu mot taalibe kay mooy ki sàkku si ki sàkku si kay loo ko sakkal deseen nga loo xam ne joxoo ko <coughs> am na loo xam ne denc na ko de buñ ca àggee nag mu jox ñu ko am ñu jàng ñëpp dañu jàng jeexal lépp mënul nekk waaw kala def la nga doon loo doon doon doon doon war nga xam ne ah kama def la ma doon sëñ bi ne ne ku la fàtte kala fal foleeku tàng loxo ca kala mbéj kon loolu benn wax bu riis la benn wax bu riis la ku fatte kala fal foleeku ku la abal bët xoolal su terewul yóbbu deretu nopp du mooy mbaggu parce que bu windee lu ànd ak moom sikkim lu ko yóbbu xakkasaa nañ gestu buñ gestoo nag ñu gas gestu gas la kon sëñ bi dañ ko doon gestu di gas garabu ñambi la ñambi nag ci suuf lay mel ñu walla ci suuf ci kaw ñu ñu suuf boobu nag mooy tasawuf dañ ko nëbb wa kas fu naa asraarahoo lay sa yelle xun naa li kaw ni sirri baral amee famandirit kas fa lasita dama naa duñaa talaxan bay naa naka secret boobu Sëñ Tuubaa nekkul ci téere bu nekkoon ci téere yi gars yi bu ñu ko jàngee jot ko kon nekku ca waaw lay seetle xun naa waaw nekk na secret boo xam ne li kaw ni sirru baxal amee ci biir géej mooy géej gi foo ca yem fa nga yem waaw foo ca yem fa nga yem kon géej xam-xam la xam-xam bi nag ku ñëw fa nga yem rek nga yemale sa bopp géej gi fii la ma yem foo ko yem géej gi fii laa ko yem mu yem la foofu waaw kon liñ tudd ne sëñ bi mbiram dafa kéemaane su ma xoolee yonente laay gis xam nga lu tax mënta bind turam ci arab mënul liir turam ci arab te xam xamle yàlla yalla du lu ñuy jàng dañ koy comprendre xam nga lu ñuy téye kone moo tax kone indi connexion waaw waaw connexion lay indi da comprendre té day ah ñu bëgg a day gane comprendre. Ah, ji sëñ Tuubaa du ma fekkee parce que la té man lay la gën tan ma gën baax nga ne kon rek dina la fekk si nañ la ku la fekk mu ne lépp lu itoo ci moom da ko def ci moom waaw kon nag yàlla lañu fekki kon lañ ca moom dañ ko jëli yàlla du jox kenn ku dul ko ko fekki ku ko fekki ne lam la amee dina ko jox dama far di wax ne béjjënu nag fa mu la gën a rafet fa mu jëm am maanaam taalibe yoo xam ne nekkoon nañ ci moom libéré na leen dem nañ delluwaat seen mbokk sëñ bi nee na yen fa ngeen jógee fa ngeen gën a rafetee delluwaat leen foofu waaye nag ñëw ngeen fi nag ma dindi leen monté waat leen ba pare ñu ne dof na ma delewaat leen fa ngeen nekkoon ku dem fekki ñoom ñii nga xam ne dofuñu ah? kon loolu sëñ ma samba mii moo koy def waxoon naa ko nag ne ko sëñ ma samba sàmm ñu sàmm kulukum raayin wa kulukum masulun an raayaat yi yéen ñëpp ay sàmm ngeen te kenn koy la laaj li nga doon sàmm waaye sëñ bi bokk naa ak ti bi waaye waaye est moom sax moom la hakka saa ndax doo moomam ndax doo moom ndax ay doomam ndax doo moom la doom moom ndax doo moom moom nga kon ay doom la hmm? wala du abbi wala du siru abbi waaw doom ji mooy mboot mi kon su talalee loolu nga xam ne jamono ji ñëpp moom la ñu wuut kenn mënu ko tere dem waaye képp ku ko yor tam dinañ la tere te dinañ la tere ah yaa ngi bëgg a faju hôpital te nangoo ñu tere tere la da nga wér il faut nag taalibe yi nangu nag ñu leen di digal di leen di tere sëñ bi tam lu muy digle boo ñëwee fekk ko ca lu muy tere boo ñëwee doo ko ca gis moo tax boo ko ca gisul ci loolu bëgg ko roy da loolu doo ko roy parce que doo ko fekk ci loolu waaw ñetti taalibe la kooku ñun ñoo ko moom am na ñoo xam boo leen digalee duñ def boo leen teree duñ baax mu ne noo koy def Cheikh Moussa nee na ah boo diggalee du def mu ne déedéet mu ne boo ko teree du baax mu ne déedéet mu ne kii nag boo ko diggalee mu def boo ko teree mu baax mu ne waaw mu ne kii nag balaa ma koy diggal mu def balaa ma koy teree mu baax mu ne mu ne ki nga xam ne balaa koy tere mu bàyyi balaa koy diggal mu def mu ne kooku sens la jàppal ne sens kooku moom sens waaw sens nag sa sa mu ne ki nga xam ne boo ko teree nag mu baax nga diggal ko mu door a def mu ne mu ne ba tey ba tam la mu ne ma ki nga xam ne boo ko teree du baax te boo ko digalee du def mun ne ñebe bi noo koy def Cheikh Moussa ne da nga koy téye mu ne boo ko téye noo koy def mu ne da koy téye rek te xam ne yàlla la ko natoo xanaa jullit du am natu eh natu nattu xam nga lu doonam du natu yaa awa sa yére yi natuñ la ñëwal la ko sama yaay natuñ la ñëwal ko saa baay ko ñëwal ko suñ natul mën na ëpp te lu ëpp mën na bañ rafet su manqué itam gis nga kasaalika du rafet lu ëpp du rafet lu manqué du rafet waaye ku la mesuré nag na jël sa taay demal mu jëm mu mesuré la nit yàlla na dañ ko doon mesuré natu yi dañ koy xaymaa comme day daa jël xan biyaayee kon luñ la bëgg a mën a natu du nattu natt la nattu nag alalu julit la yéefar bokku ca tuuma alalu julit alalu julit alalu alalu gor la saa saay amu ca yoon kon jaami dinañu tuuma wax lu tuuma mooy wax lu amul wax lu amul lu mu lay naqare li nga wax amul loo koy gëstoo nag dañ la ciy nattee gis nga pour solal la ah waaye nañ xool finition waaye sa finition bu nekkee jeexit ci yàlla sa mbir yëpp day jeex ci yàlla sa mbir yëpp day baax mujj bu rafet mooy mujjee yàlla mujj bu rafet mooy mujjee yàlla sëñ bi nag yàlla la mujjee moo tax ku xool njëlbeenam nag doo ko nangul bu waaye nag duñ xool njëlbeen weesu na waaw nañ xool tey daaw sëñ bi lu mu doonoon jant la woon gars yi di ñëw nag ne ah jant bi de moom fóot na sama yére waaye nag wóoluma def ko ci jant sëñ bi de kon nooy def mooy jant tey ku fóot sa yére weer ko ci jant tey xamal ne jant démb bi mooy mooy bu tey bi waaye nag pour yow jant démb bi bokkul ak bu tey bi nga ne tey doo weer sa yére nan ngay nan ngay nan ngay woole Hmm? fi ñu koy tëjee nag mooy lii suñu yonente si Masamba sallallahu alayhi wa sallam te li wax sallallahu alayhi wa sallam waaw xayra waaw ah da xam na ci dara doo woon tous de amuloon dara de waaye lu ti tibal as kook tuuti kook boobu daa ba tey mënagul jeex ti kook googu lañ jël di kookal gars yi ci kokki kokki gi moo tax ñu gars yi ne kokki Koki, xam nga koki yi mu ne nii ñooñu dañuy dañuy waaw ah ak sa waaw kuy wadoo lamen du rafle ku ko wax kat bi mu ne dañ koy fecc mu ne doon duñ ko dégg ci kenn du ko fecc waaye haramul déglu jeni jeni jën Kusakan mag yi jeex na yaa boo doko yi des ku sagan da nga magi yow nga koy fecc do ko dégg lu wax la am lu wax jeni yaboy lañ wax moo des ku sagan ku giiroo lu ko jar ba karaane ceeb bu sew bi moom a gënal ceeb bu dijj bi moom a gënal ceeb bu sew bi wax bu am vitamine bi dafa gën wax yu sew yi moo la woon yu sew sew yooyu ah, fu ñu ko puri rek eh yéen a dégg yàlla parce que yàlla ngeen di déglu nit nag mën na ne fecc ay noppam di déglu la mu dul dégg kon loo koy dégloo yéen a dégg yàlla moo tax yàlla ngeen di déglu lu mu mën doon son yàlla moo cay génne ràññee leen ko mooy feeñee fu ne de mooy génnee fu ne de mooy waxee fu ne de mooy jàngalee fu ne ah gisoo profit di joxe ay cours képp ku génne fii am na cours bu ñu la war a jox nga ne lii dafa métti du ma ko nidiyante yow doo ko liggéey ko téye nga bëgg cee gis leneen loo ca bëgg wala xawla wala xawta ila waa léegi la lu seyoon lu si seyoon nga ne kii di see nekkee nekk ci du ci am de nañ dégg yàlla bilaay dañ koy dégg buñ ko comprendre dañ koy dégg dégg suñ ko déggee nag ah sëñ bi nee na ma eh coo daam wax ña daxaa mana ku nekkul séeréer doo doo ko mën a indi ah waa ji nee na séeréer dañ koy namp ma ne ko déedéet meew la ñu namp dégg séeréer pël du lu ñu namp lu ñuy dégg la làkk bu ne dégg la laaj dañ koy dégg mais na wax ne dañ ko namp nampuñ ko de meew lañ namp pël meew la namp séeréer meew la namp ba pare dégg nag xakasa indi tubaab léegi balaa def ay quelques jours du dégg def koo namp xakasa kon nag yàlla sëñ bi dégloo nañu yàlla am bu baax bi muy xam-xam bii lu waay am xam-xam bi moo ko gën lu waay yor tam lii mii sëñ bi yoor ku ko yooru lam yoor a gën la nga yoor yoor boobu nag sëñ bi yoor yoor la ñu gindi moo tax mu ne magal ba yoor yoor ñu ngi suñ bëgg ñu ne yoor yoor diggante onze heures dix heures onze heures bi di loolu ñu wax ah mooy dix bi nga diisoon onze heures mooy onze bi nga xam ne dañ koy jàppee jën yi ndax dégg ngeen ma diggante dix heures ak onze heures ah waaye sëñ bi boo jàpp sane onze bi yaa amata buy ñëw lu muy indi waaye dix bi nag diggante yii nag bu deñee lii bu deñee yor nga fa mu dégagé bi dégagé bare yor la nga yor mu yor la nga yor mooy sëñ bi keroog ba ñuy gindi bu doon guddi sax ay minuit sax keroog yor yor la yoor nañu yor nañ yor nañu yor nañ yor nañu yor nañ muy yor yor fu ñu bëgg a jëm moo tax magal bi yëpp ci yor wa moo tax saa musaan li ma leen yor ku leen ko yorul li ma yor a gën lam leen yor lii kay dafa neex moo tax sëy bi yor nga ñu ko di nii la ko dindee nii la ko tëggee waaw nee na nag dañu xam ne abrégé rek waaw sëñ ko wax de journaliste la waaw kon léegi nag lan mooy setal xol jamono ji bu ñuy naanoon ci lii lépp dañ waaw gars yi dañu ñëw ne corona man ne luy corona mu ne corona feebar la quoi bu ñëwee ci yow day def ni comme xaw ma comme soj la lay dikkee sëñ bi nit buy juddu indaale buy dellu akbar waxuñu socc bi ñu soccee ba ñu socc yooyu ci bakkan lañ koy soccoo ah wa ñu ne jumtuwaay yi mooy lan mu ne masque mooy maandu comme di ngeen wax lu leen lu leen warul ñu ne leen nii masque mooy nañ maandu te julit lépp li yàq mbiram mooy ñàkk a maandu sëñ bi bu ñu maandoo ci moom léegi ñu jëriñu mais maandu wu jëkk dëdë dëdë dëdë virus bi dugg na leen bu yàgg ah parce que luñu tax contact ek xaw ma nu ñu ko waxee contact ah communautaire xaw ma nu ñu ko waxee communautaire ak no xaw ma nan contact <coughs> waaw boo ne tak contact luy feeñ am ñu lay wal doo leen xam am ñu lay wal nga xam leen toogal fii maandu woo ñu wal la jiko sëñ bi nii la mel sëñ bi nii la mel moom kañ nii la ñu di defar xale yi nii nangam nangam wal nañ la jiko boo deful nag doo ko yëg parce que buñ lay jox mbir nga yëg ko nga bañ mais doo ko yëg parce que da nga defee ne baneex la feebar bu lay dugg ni mu lay duggee da nga defee ne baax na balaa muy mu yàgg na mu def effet ci yow nga door a ah, waaw kon loolu ñu wàll pour lan du virus fu mu jëm ca xol bala jem ca xol bala jëm mu ne zel ma ne ko du zel nga sel doo sel ñu ne zel raxas leen loxo yi raxas leen xol yi ina laha la yansaru aswaarikum ina yansaru qulubukum soxla ma seen yëngatu yi ngeen di def mais li ci xool yi laay vérifier xool yi moom lay njëkk a xool bu setee lépp set na bu tilimee lépp tilim na waaw mu ne ndox mi nag ak saabu bi muy dooni boo demee saabu kese kese ndox kese dina setal ah saabu kese dina setal laa ilaha illa mooy saabu bi laa ilaha illa saabu bi laa ilaha illa allahu gisoo allahu bi maa mujj allahu ba mooy mujj mooy ndox ma fa lañ kastere ndox mu neex mi zam-zam foofu lañ ko kastere zam-zam mooy xam-xam xam-xam bi doo indi ndox boole ko saabu bi laa ilaha illallah moom ma ñu ko kii bi nag ndox mi nag ci xam-xam bi mu set wecc loo bëgg am ko loo xool mu baax loo gis mu baax loo jàpp mu barke sa mbir yëpp jàppandal loolu la ñu defal de waaw moo tax buñ la nee jëlal nag bi bu la deewul buñ ko rendee sax jox la dula la moo tax moom nag lii la def waa Kër Massar ñëpp ñu xamoon aj si maka fii ñëpp dinañ aj si mi ak ku dul ñoom dinañ ñëw fii mais ñaka xam rek a fi ne waaw waaw xam nag dina waral xam déggoo ma de ñaka xam moo waral xam déggoo ma de ñaka xam moo waral xam waaye boo xàmmoon da nga génn ci xàmb xam amul xàmb am rek waaw xam na nag ay sëriñ lañ de waaye xam yi itam ay sëriñ lañ kon xam yi ñoo fay xamb yi xam yi xam-xam yii ñooy fay xamb yii lebu du lebu daa leboon te ku leb bor ate bor ah yéena ko wax de waxuma ko de waxuma waxuma ko sëñ bi ah ñu ngi ba de ñu ngi gàmmu de waaw bi ñu gàmmu de borom kudu du ah mo mo fi waxee di suñu jaar jaar ya, dal ñu nekk na ñu bañu nepp bëgg xam-xam wu ci seen youtube bu TV na station bi ñu la nga ndax ngay am vidéo yi ñu dugal chaque jour